réew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm yaakaar naa ne tey jii Fadam et Buur dellusiwaat nañu buur maa ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah tey jii yaakaar naa ne plateau bii ñu toog mën nañ cee jàpp ne sénégalais yi Fadam Buur mën nañ di ko xaar fii ci Albourakh production. hey loolu El <laughs> Hadj Sàppale buur yaakaar naa ne tey jii Albourakh production. Hmm. mën nañoo wax gum ne tege gum na loxo. ci diggante El Hadj Sàppale ak El Hadj Buur. buur géwël kon tafadalal mashhura waaw yaa mm-hmm. yaakaar naa ne nag balaa maa jox buur mu nuyoo te actualité bi lu ëmb bari na ñu ngi ñëw ci bës boo xam ne nii tey jii dañoo war a ñëw ci la Modou Lo roi des arènes fan la Modou Lo jëm mm-hmm. Balla Gaye numéro 2 ñu ngi dégg ay adversaire am fan la Balla Gaye numéro 2 jëm mm-hmm. diggante Ama Baldé Gris Bordeaux dañ ciy xuus fan la Siteu jëm fan la Reug Reug jëm buur diggante ki nga xam ne mooy Eumeu Sène Sa Thiès ak jàkkaarloo bi war a am dimanche buur fan la ñooñu jëm ñuy loo xam ne nii nag réew mi yëpp ñu ngi ko doon xaar di yoon wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alaaji buur géwél maa ngi lay nuyu jërëjëf alaaj sàppali maa ngi lay nuyu di la wax ni namoon naa la dëgg la te xam nañ ni gaa ñi namoon nañu mm-hmm. xanaa rek dañuy sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. di ñaanal suñu bu jigéen fu mu tëdd taal bi Seydil Boubacar Si wallaahi ndeysaan sang may sangoon na Njaay bara faala si nga kenn du moom yàlla xare ko aljana lépp moo ko liggéey lépp mooma lépp moom di ko ñaanal yàlla dajeeg soppeem ba sa sëriñ ba sëriñ Babacar Si daje nag moom xanaa rek ñuy feddali suñu yaakaar ak suñu ñëbbal mm. ci nu buntu cheikhul xadim wallaay ndeysaan di cheikhul xayri mawlaana cheikh ibrahim ibnu sëriñ Mbàkke Madina buur faram maa ngi lay ziar suñu ndey jógi daal dénkoon borom ki nga xam ne nii mooy kii mën a kanamam mën a ginnaaw moom rek la gëmoon mooy sëriñ Aboubacar Si mm, moom rek la gëmoon gaar wallaay moo jàkkaarloo woon ak bàyyi ne ko su ma doon ku ma woo ci photo ma woo. billaay barke Cheikh Oumar kenn du si moom ngay xalaat rek sa aju faju. Mm. buur doxalal ñu dem. jërëjëf El Hadj Sàppali ci ni ko waxee ci foofu la ñu jëm. Oh. buur bisimilah. jërëjëf El Sàppali comme ni nga ko waxee rek ñoo ngi jëm ci annonce boo xam ni le roi des arènes Modou Xarañ Lo seetaan nañ ko barki démb. Mm-hmm. bi ñu ko laajee ses potentialités adversaires lam ca wax moo teeyloo xel yëpp. moo jaaxal réew mooy damay pose làmb ba ci kanam. pour loo loo loo yëg pour man bu doon dem bu fekkoon ni dafa ni damay reposer. mën na jël avance am ndax Modou Lô du bëre tey du bëre suba. gàtt gàtt na toog juróom benn weer wala juróom ñaari weer yoo xamante ne que ci lay bëriwaat. donc damay pose làmb ba ci kanam fana mbaalu li ma njort sama xel. buur sama yaram li ma yëg li ma yëg neexuma ci Modou Lô. bu ko defee tooñ. buur Modou li ma dégg ci moom mm. communication Modou Lo buur buur Modou li ma dégg bu fekkee ne staff bu war a dal ci ginnaawam teguwuñ ci ginnaawam mm. ñi war a communiquer moom communiquer wuñ ci moom mm. buur damay ragal Modou Lo bàyyi làmb waaw mais xam nga tamit quel que soit staffam lu ñu mën a doon ak taxawaay bu ñu mën a am dernier mot bi c'est moom voilà c'est Modou Lo na ça fait pas mal temps gisatoo Modou Lo ma nga daan gis ci làmb ndax làmb dafa boole xarfa boole fuufa boole bëre boole entraînement donc su fekkee dem na ba yaa oustaz ni mu waxee noonu la nar a jëfee y'aura problème hmm? te ah faram nee naa la bés bu ajee màkkate daan Balla Gaye mënut a dégg alaaj bi buur da ngay ci la nga waxoon ah, maa ko wax buur bëggum Modou Lo bàyyi làmb te jël ñaari avance diggante mag Tapha Tine ak diggante mag Balla Gaye de looluy mbir mi sàppali buur ndax Modou Lo du bàyyi làmb bu ko bàyyee tooñ dina tooñ amateur tooñ promoteur yi buur Modou mii ma gis ay waay bu mu def loolu sàppali bisu jaam oustaz bu mu def lii buur Modou Lo mi ma gis dafa mel doyal la ci lam keroog ba mu daanee di ñuy parcelle te guney da euh, guney dar ko di ko wayal talal badru alayna bu mu bàyyi buur Modou Lo mi ma gis dafa mel ne bàyyi na lam buur léegi kon bu bàyyee ñu koy def buur déggul li la Ama Baldé léegi hmm. seetaan naa ko sa diggante ak moom wallaay ndeysaan nee na bu Modou Lo bàyyee lamb rek ñu créé waat beneen couronne waaye ñu beneen couronne waaye lamb mu ngi waaj a créé beneen couronne bees ndax Modou mi ma gis lamb xaw naa wàññeeku ci moom buur ndax mu tax hmm. dafa dafa mais man raison yi laa gisul Fadam waaw waaw dafa réussir loo xam nii da ko yàgg bëgg réussir muy nekk roi des arènes xool ñaari xale yi gën a tàng ci làmb mu jox leen chance daan leen buur bu Modou Lo bàyyee làmb ci couronne bi Modou loo ba ay sëtaatam duñ fàtte li Modou Lo def ci làmb bu Modou Lo bàyyee qui sera le roi loolu problème bi <laughs> sàppali am na luy xew dimanche moo tax ma ne la kii sera le roi. buur bu Modou Lo bàyyee làmb hmm. ndax fa lañ mën a taxaw. waaw ndax Modou Lo nee na bu ma kenn wax waxu làmb waaw dama koy pose ba ci kanam. dama koy pose ba ci kanam. cela ba dire que ba ci kanam maa ngi waxtaan ak samay jegeñaale. buur diggante fekk tabaski ñaata moo ci des. juróomi weer. bu moo soo déggee ñu ne Modou Lo aji na Makka. mooy mooy carte ga jeex na. waaye dinaa la bu demee yóbbaale te bu ko defee dinañu tooñ ah oui ndax li mu ñu mosal ci ñaari combat yii bu naree def leneen lu dul mosalaat ñu ko dinañu tooñ sàppali tey it na xam ne couronne bi ci ay loxo la ko jële woon waaw waaw est-ce que dem yóbbaale ko bañ ko teg ci ay loxo tooñ la te jullit du tooñ mbokkum jullitam lii tax man ma jàpp ne Modou Lo pare waatul pour bëri ci làmb dañ ko proposé Tapha Tine ci ñaari promoteur différents hmm. mu déglu promoteur yi wax ba pare mu rejeté Tapha ñu proposé ko ci mbëri ndaw yi kenn mu pose ko ne bëriwu ma ak moom waaye ñaari point yi rek laa yaakaar ne Modou Lo mu ngi koy bàyyi xel muy diggante Sa Thiès Eumeu waaye damaa jàpp ni Franc du bëre bu fekkee ni que dafa bëgg bëriwaat ak Eumeu Sène une troisième ultimatum combat kon warti mën a bañ digganteem ak Elias Thioukoli. buur fan la Balla Gaye jëm. Balla Gaye li faram moo tax ma ne la bu Modou bàyyee couronne bi qui sera le nouveau fan la Balla Gaye numéro 2 jëm. bés bu Modou Lô bàyyee ko bàyyee couronne bi ba ñu créé beneen couronne te ñoom Baye Ndiaye ñi ma gis bés bu Modou Lô bàyyee couronne bi danañu tegaat beneen couronne. buur dimanche. ne nañu balaa samedi tey la lan tey la alxames buur balaa dimaas adversaire Balla Gaye avant adversaire Balla Gaye numéro 2 day leer ndax juboo nañu. yow koo njort yow. buur koo jot man de bu ma juumul digganteem ak Sakandé. am na Moustapha Balla Gaye ndax am na conseil bu mu jëlee Tafa Sakkan. Ah, ah kay déggoo li la Abdoulaye Aziz Ndiaye wax. wóor ndax Balla Gaye numéro 2 mii ma gis. ma ni Fawzayni mën na mu daan ki nga xam ne nii mooy Bombardier ci benn ngemb. la ilaha tekki Boy Niang mi daan Balla Gaye numéro 2. Ah, tekki Boy Niang tekki Eumeu Sène sëñ bi ban Balla Gaye numéro 2 moo war a dajanteeg Tafatine. ma ni Tafatine wóor loolu nga wax na Balla Gaye seeti keneen. ma ni Tafatine rabu ndëppam Fawzayni ko yor attention. rabu pour tafatine Tine Balla Gaye de ko yor te dégg nga li Abdoulaye Ndiaye wax léegi il se prépare pour aller à l'INSEPS pour une durée de 5 mois divisé en deux tranches day dem defi ñetti weer dellu si waat dem defaat ñaari weer ya nga rappelé wu keroog bu Balla Gaye de jógee INSEPS war a ak modlo alias Niakha Faral dimanche. waaye ndax loolu ak tafatine Tine la. ah kay. bour ndax Balla gi du xol gis nga faram. bour ndax Balla gi du xol feneen. Sapali. buur ndax Balla Gaye de bu liggéeyee tuuti am doole mbër du ko daan ndax bëre alif ba yaa da ko tari. buur damaa yaakaar da nga fàtte kan mooy am di Moustapha Tine. waaye yow yow yaa fàtte yow yaa fàtte kan mooy Balla Gaye de. buur da ngaa fàtte kan mooy Tapha Tine. ki fi battre les vaincus Yakhya Diop Yékini. ku tegle trois victoires similées. ki battre Modou Lo mi tey di roi daan ko ñaari yoon. ku daan Bombardier. daan Balla Gaye daan Balla Gaye. ah saa daan Eumeu Sène suuf sama xeer bi. ngay tëkkale ki nga xam ne mooy Balla Gaye de. Balla Gaye de est le lutteur le plus redoutable de sa génération. barkal buur loo bëgg wax li ci moom new ci kenn dama ni sama wax jii buñ ko dee werante yaa oustaz nañ ko wayal taral baaduru alay na mu jël awax ci ku li nga xool dama la ñu woon barki dee ma ne la l'hémorragie Modou Lo sër oh, Balla Gaye oh. dee pour pour l'arrêter attention falam Balla Gaye dee ku ko natt ci tolof tolof yi bu tuddee ko fausey bi yaa ngi ci erreur ah gars yi de dégg naa genn góor du matt la waay waay attention Balla Gaye dee faram ban mbër ko gën ëpp xam-xam bëri ci lam buur wala diggante Balla Gaye ñaari avance yii wala digganteem ak Siteu ngay ñor. Ah, damaa xam ne xew. Balla Gaye diggante ak Siteu nekk waaye est ce que Siteu yor na doole jum ko daanee ku réussirul Lac de Guiers est ce que mën ngaa réussir Balla Gaye 2 ak rapidité bi ci moom technicité bi ci moom ak mën a bëre bi ci moom. buur tiit naa ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Siteu. coow loolu. buur tiit naa ci diggante Balla Gaye numéro 2 Siteu. ay coow loolu. te fii may wax ak yow li ma information yu ma jotagum. Hmm. ñaari kaala la ñu songagum. te benn kaaba ñu ngi waaj a juboo ci wàllu programme. kon de kon de Balla Gaye Siteu taxaw na. maa ngi ñu daje. yi booli booli bëgg nañ diggante Tapha Tine ak Balla Gaye numéro dañ ko sañ a bañ. ko. lu bëgguñu ko. bool bëgguñu ko. lu bëgguñu ko. bëgguñu ko buñ ko bëggul dañoo tàppe la. Modou Lo oh oh, buur waa bool Modou Lo lañ bëgg ah, ku fi teggi Balla Gaye laaj Modou Lo muy waaj bàyyi est-ce que defoo erreur ñoom te ñoo tàllal ñaari yoon yëpp bu ci bu ci yegg ñu jël et puis lu tax sax sàppale ñu bëgg a daw ñu bëgg a daw Balla Gaye de fuñ ko teg ñan bool bool <laughs> buur mbay ndeewaan ak may dégg lu tax ñi muy foofu ah, sama diggante ak ki nga xam ne nii dañuy Balla Gaye mooy Bada Dione doo ko yàq Bada Dione dañu Balla Gaye doo yàq sama diggante ak Bada Dione dañu gaynde gu màgget la nañ ko jël ah ba da jonni mi ma gis day dafa dafa tin mi ma gis day lii mu def Kontur nationale ñaari yoonam yii contre Boy Niang ma gis ko contre Eumeu Sène ma gis ko ah, ah ni Modou Lo def Pikine la def Pikine de waa sàppali waaw Lac de Guiers moom def jël digganteem Francesco dafa neex dama ne waxoo buur Reug Reug dafa daan Bombardier waaw waaw Sénégalais yëpp ne daan Bombardier ma ñu soxla waaw Reug Hmm. waxuma la waxu wax de. yóbbante la. Reug Reug nee na ma. Hmm. li muy def mbër ñi daan Lac de Guiers 2 moo gën a yomb ci carrière am. jàpp nga ne mën naa upaaj am Lac de Guiers ah, fu ah ji Bombardier échec. man moom man ji hmm? yi. dama ne. ban fu Modou Lo échec. ban Bombardier yi. fu Modou Lo waaw ci Lac de Guiers. naa. Eumeu Sène ci Lac de Guiers. d'accord boo ñaar échec fa. ndax Reug Reug dina ci mën dara. waaye xam nga Reug Reug day xale boo xam ne du gën a yi. rek rek du gën a kenn waaye sàppali am na leen lu ma farat mooy lan diggante njaago be coriace loo ci xalaat balaa ngaa ñëw foofu dama am lu ma ndax coow ko <laughs> waaye buur lii ma lay wax nii mm. man maa la koy wax nga dégg ko man bokkoon naa ci stafu Lac de Guiers numéro deux mm. Franc ñaari mm. awaat laa ko jëloon d'accord la xam nga lu Lac de Guiers jël waaw Lac de Guiers numéro 2 dafa toll ci làmb foo xam ne nii bu ñu doon joxe drapeau arène sénégalaise Lac de Guiers numéro 2 lañ koy jox. Hmm. ndax palmarès ba. waaw riche na trop. palmarès dafa riche hmm. waaye pour Lac de Guiers li mu soxla ci làmb mu mën koo amaat day tàllal loxo rek rek tàllal loxo ki nga xam ne nii mooy. xale bi nga xam ne naa stade bi ñu ko ne xam nga franc mu ne kuy kooku. wóo ma ne ko Lac bu doon am nga staff bu baax. du wax loolu. ñaari xale yi foog nga mos ci benn booy. non dama ne diggante mag rëg-rëg. ndax Franc tey mënut a romb rëg-rëg. waaw mais mënut a romb Franc. déedéet fu Balla Gaye jëlee Boy Niang. Hmm. Modou Lo jëlee fa Boy Niang Ama Baldé. Hmm. Lac de Guiers numéro 2 jël fa Siteu. Hmm. na ko dem doole motalee rëg-rëg. ndax ñoom ñaar ñu bokk baasu rek baasaar. mais mu lu ko tax a ragal rëg-rëg. da ko ragal nga jàpp. astaghfirullah man hmm. damay wax rek. da lay attaqué suba de. Hmm. lak baal ma de day day woo day woo. lak bu jigéen bu gàtt boobu. lak te Fallou Ndiaye lay woo de. lak kob koboo sol koboo. kaa fonti kaa kokolo benta. wallaay su mbokk soose la. wallaay maa ngi jéggalu. Hmm. ragalu ko waaye logique la. xam nga faram dama la wax fii ne buur dama la wax ne la. ñëwal am na xale yoo xam ne dañu sës ci dee gi mu neex ñi ak mu naqari ndax d'autres champions s'en vont d'autres champions judduwaat Gris Bordeaux day bomb day dem Eumeu Sène day dem ala kulli haal donc kii di Francesco ñëwal kii di Coriace ñëwal kii di Siteu ñëwal ba ci ay ñoom Diène Kaïré ñëwal ay ñoom Serigne Ndiaye 2 ñëwal ay ñoom Jackson ñëwal ay ñoom Sokh Eumeu Sène Junior ay mm-hmm. dañuy yéeg te dañuy ñëw min mënu ci daal buur làmb day tollu guddi yoo xam ne nii mm-hmm. lépp lu mbër mbër di bañ génération bu mujj bi ñoo la koy nangoo teg. Hmm, dégg naa dëgg. buur la dëggeen numéro 2 fii mu toll ci làmb. mënatu la bañ xale yi. mënta bañ franc mënta bañ rek ndax bu toogee deux ans mooy toppaat ci ginnaaw pour bëgg bëri ak ñoom. waaye bu bëriwul ak xale yi la dëggeen du bëri ak Balla Gaye de. ñëwal bëri na ak Eumeu fois. ñëwal bëri na ak ñëwal bëri na ak Modou loo ñëwal bëri na ak Gris Bordeaux. ñëwal bëri na ak Boy Niang 2. <laughs> am na leen lu ma yëg am leen lu ma yëg. sàppali lu yëg. surtout sax yëngu mbaat bi Boy Niang numéro 2. fu mu eh, jëm ma sa xarit ci jox xam nga dama leen ne moom il n'a pas le choix. waaw Boy alerté woon naa la Boy Niang Boy Niang dina jël combat de risque buur. waaw xam nga newoon naa la amul pexe. amutul pexe ci làmb. nga ne ma ci naka. Mm-hmm. man la bëri na ak ñëpp. te ñii du bëri ñoom. wallaay ndeysaan. mooy sàpp yooyu dëkk Pikine. ba nga sa baram. ñëwal sàppali. du bëreeg Tapha ak Tapha Tine. déedéet am na du ko jël du bëreeg ki nga xam ne nii. du bëreeg moo du déedéet. du bëreeg Balla Gaye boo ñaar bëriwut ñaari combat revanche yi taxaw ci kanam bëriwut ak ñoom. mooy Sa Thiès. bëriwut déedéet Sa Thiès ba ñoragut loolu dañ koy nëbb ci suuf. waaw loolu leneen la. leneen la. Hmm. boo ñaar bëriwut ak Lac de Guiers numéro 2 bëriwut ak Tapha kon boo ñaar la est-ce que ne dafa am ñaari avance yi ak combat yi moo ubbi leen buur dafa am ñaari avance yi nekk ci kanamu boo ñaa boo xam ne njëkk jël la muy kan ak diggante rek boo ñaa war cee mucc ndax xam nga tey gi ah, jaaduwul sax oho boo ñaa numéro 2 pour mu mën a del sotti làmb te la mu yoroon te base ba te communication ba te lépp lamb day xool ñaari xale yi gën a tëj ci làmb mu daan ci kenn est la Modou Lo am ci moom xale yi mën nañ ko am ci moom sàppali tiit naa ci xale yi de. <laughs> caaxaan daanu ko de. nee naa la Boy Niang keroog a appris et il a compris. buur Boy Niang 2 il a appris et il a compris. su ma la déggee da bëgg di wax ne defet ba mu am ci Modou Lo lan la ko jàngal. jàngal na ko àddina tey son prochain combat ci nga xam ne Boy Niang 2 il a compris Fadam Boy Niang 2 li mu dajale ku ko dajale dégg daal di. wallaay ndeysaan. saf xorom. Mm. bari bàyyi de. wallaay ndeysaan mën a bëree. mais sa xel mi ci mën a xeex. am pexe bëre pexe bëre. ànd ak ay borom bopp. ànd ak ay borom bopp. ànd ak ay ndaanaan am staff am boo xam ne dañ lay jaral xuloo. teg ci nag ay nit. teg ci nag ngir mën a fay. waaw ci nag di doomi géwél. attention sa mbokk la sa mbokk buur. <laughs> <laughs> <laughs> coow li lu mu bari bari bari bari bari Ama Baldé dimanche mooy premier jàkkaarloom. ak Gris Bordeaux ak Gris Bordeaux deuxième waaye bu fekkee sur leer arburaax la. waaw mooy premier jàkkaarloom mooy premier jàkkaarloom xam nga Ama Baldé tey dafa war a indi benn communication bu tracée parce que combat ma Gris Bordeaux. Mm-hmm. quatre pour cent ci combat bi. ci moom la reposé wala ci moom la dépendre. laa ilaaha illallaah ndax nag bu ñu fàttali que nag coono li muy bari bari nag amaana. Oh, amaana lu mu indi Gris Bordeaux wecc ko. Fadam lu mu indi Gris Bordeaux wecc ko buur. bu yoree CFA. lu lu mu indi Gris Bordeaux wecc ko. bu yoree dollar. lu mu indi Gris Bordeaux wecc ko. bu yoree euro. lu mu indi Gris Bordeaux wecc ko. bu yoree dalasi. buur ma tax la leen. <laughs> Gris Bordeaux bu wàccee ci waxi Ndakaaru xam nga lu ma njëkk a wax. Hmm. état de forme bii moo yor du pour Ama Baldé nañ ma xoolal ci xale yi keneen ku gën a tàng Ama Baldé ñu dolli ma ko ma am leen lu ma def ak moom kon moom da bëgg ni que daa bëgg a añee Ama Baldé déchargé ci ku ne kenn waaye naa nekk buur su ma la déggee lii ngay wax ma wax la leen ko <laughs> li bëgg moom la Gris Bordeaux a def ki nga xam ne mooy Boy Niang numéro 2 est-ce que génn ci buur li ma la wax nii ak li ko dal perte un combat très capital wallahi un xam nga ku ma yërëm xam nga ku ma yërëm xam nga ku ma ci làmb ki nar a dajanteeg Ama Baldé wala ki nar a dajanteeg Boy Niang ah gaynde de mer la fanaanoo Ama Baldé dégg nga ñaan bi mu ñaan léegi li dugg Pikine yàlla na fi génn ak jàmm waaw waaw yàlla na fi génn ak jàmm te te te gis nga sàppale waaw buur Gris Bordeaux nga bëri xale bu saf sap bu saf sap te nag damaa xam ne lu coono yu bari bari nag moom mooy moom mooy borom Pikine nag kan mooy borom Pikine Ama Baldé ah oui moom moom Pikine dëgg li nga ah li ngay wax xam nga le chat il faut l'appeler son vrai nom. bu dee muus sera un muus. Hmm? bu ngeen di muus la. bu ngeen di guddee. muus la bu dee siiru muus la bu dee muusu maygal yi muus la bu dee muusu restaurant muus la. ah Balde mooy borom Pikine. sama benn waay nee na ma. Hmm. boo duggee ci maygal. balaa nga xam ne mayga bi mayga la. xoolal muuse xoolal muuse ndax suur nañu wala suuruñu. walaay bu ñu suuree ma di tuddee sa mayga ba turee ak benn ca grand nga xam ne sama carrière yëpp ndeysaan fa laa ko defee. waaw moom mosaan la ñëw rek ba laaj pomme de terre deux cent. laaj spaghetti deux cent defal ma ci six brochettes laal ma ci may cent franc à la càppari ba mu jël soble bu ñorul ba sànni ma ci ma jël bi nay garga laal laal ca mami ba ndeysaan sotti ko jël sama liibaru mburu naaxaat ca na fukki dërëm sàppale ko waaye à la càppari li ma la mën a wax mooy Gris Bordeaux il a du pain sur la planche mooy lan mooy ban Ama Baldé lay dajeel. Gris Bordeaux est-ce que Ama Baldé dina accepter Fadam ñu humilier ko ñaari yoon. buur est-ce que Ama Baldé dina accepter disparaître. buur attention Sapalé. buur lii ma leex dama bëgg nga jàpp ko. ah baax na. Abbas Ndoye ak Moustapha Guèye dañoo toog def réunion de famille. ñooñu dañooy naar ko yu mag yi borom pexe yu mag yi. ak ki nga xam ne nii tey jii buur ma joxaat la beneen information de taille. tey eh, Fadam yaa ngi Balla Gaye numéro 2 ak Ama Baldé ñooy bokk benn lal ci INSEP de waaw waaye teg ci ne Gris Bordeaux it dafay dem. <laughs> Balla Gaye numéro 2 ak ak Ama Baldé ñooy bokk benn néeg ci émission de Paris. xam nga loolu jaaxal na ma. dañu ne déggoo sànq ma ne Abdou dañ ko bëgg a jël mu seen produit. non buur day dem su ses propres moyens. buur hmm. déglu baax li ma lay wax jàpp lii ma lay wax nga bàyyi ko xel Gris Bordeaux face dañ koo laaj roi des arènes. waaw xam nga Fass c'est su mosuñu ko dégg. buur Gris Bordeaux Fass dañ ko laaj roi des arènes. Hmm. te Gris Bordeaux dafa gis ci Ama Baldé xeex boo xam ne nii dafa jàpp ne mën naa dur Ama Baldé mu daan. waaw Gris bagarreur la waga la. buur Ama Baldé dafa jàpp ne ni Ama Baldé bëri gaa yi bu ko bëri moom mu humilier ko. moo tax laaj naa Ama Baldé ban Ama Baldé moo nar a ñëwaat. xale bi yee duggoon ci caaye tafatin de. oh oh duggoon ci caaye Malick Niang. oh oh dugg na ci caaye ju ne. est caaye ji muy dugg lu mu fay fekk. waaye buur balaa ñëw daaneel. Hmm. ndax Eumeu Sène dina daan mag daan rakk. bu ko defee day way la woo xam ni Sédhiou Ziguinchor. Cap Skirring. Maka Koulibantang. Jembereng. <laughs> buur yaa yi bëgg a sori de. soos yëpp dinañ am lu naqare ak joolaa yi. loolu warte mën a ne. buur ndax am séeréer bu dugg ci biir daan ko ñaar yoon. buur Eumeu seen amaat sens ci làmb. mooy bu daan Sa Thiès. est-ce ko daan. buur la bëgg a wax. Salif ak lim jot a mos. ci rek est-ce que bu ko mosaatee Salif le roi des arènes li bëgg dégg de comme ko Balla Gaye de ameloon bor ñëwal Sa mën na laa fay. buur la bëgg a wax. dara jooju Rasulullah mu ngi bëri mag moo xam ne julli benn gone bàyyi la. buur su ma la waxee leen di ko gëm. Eumeu Sène dawul songu Sa dawul bëri ba. dañu dajee. waaye bu ñu dajee làmb ja latéral la jëm. dañu daje. buñ jarkandaloo. Eh, waaye oh, oh, oh, buñ jarkandaloo waaye. buñ jarkandaloo buur. Chapelet. buñ jarkandaloo. yaa ngi dawal suma yaram te wax. buur jeex bur. buur. Eumeu Sène dafa bëgg daan Balla Gaye daan Sa Thiès. Sa Thiès du nangu loolu il va défendre l'honneur. buur ndax Eumeu Sène nii mu noppee nii bëggut a pees Sa Thiès daan am Balla Gaye ñaari yoon bëgg a daan Sa en tout cas dimanche dinañ leen peese psychologiquement. fële ca Cosaan Night Club ça sera en direct sur TFM ak Albouraq Events. Sa Thiès dina ñëw ànd ki bokkam Eumeu Sène dina ñëw ànd ki bokkam buur Ama Baldé dina ñëw ànd ki bokkam Gris Bordeaux dina ñëw ànd ki bokkam buur Balla Gaye di El Hadji Coukul dina ñëw waaye ak adversaire am ak adversaire am ak kan waaye buur hmm. lii ma leex na ko bàyyi xel jàppal baat bi ma lay wax hmm. Sa Thiès day jël si revanche ñaari revanche Sa Thiès day jël ci revanche ñaari revanche yu ban ak ban magam la ñu daan ñaari na ko waaw ma seen waa kër Double Less ah, moo tay fu mu leen dugal. fan la leen dugal. waaye fanam. Eumeu seen lan la seq kër Double Less. lan la. Eumeu Sène lan la nen noo waa kër Double Less dama koy dama koy laaj. ci histoire tay si nga mii tay si nga mii. lan la dama koy laaj ci histoire oh. la bëggal soose yi. lan la lu ko soose yi def. waaye dana leer waaye sàppal nooy def suru bët. mooy sponsor bu bi ñëw ci làmb. xam nga gars yi dañ daan daje stade ñaari mbër di bëri. ñii kaw kii ne teg naa ci mbër sàng ku ñemee tegal sunu bët ñëw nag. naar bi ñëw ni ci làmb. naar bi ñëw ni ci làmb ji. naar bi ñëw la ci làmb ji ko. laa la neexee tegalu la neex. boo gañee jël. te kenn du yëg ne gañe nga kenn du yëg ne gañe nga. bu la neexee boo gañee na pët waaye sunu bët fu naar bi la ñëw ci làmb ji. naar bi dikk na ci làmb ji la sàppali. kon nag sàppali waa axiru daawaanaa alhamdulilah rabbil aalamiin. ba beneen yoon. nhất dạ.